Assalamualaikum, maa ngi tudd Amadou mbalo maay inspecteur point focal projet Riden Home ci kungel Koungheul. lu waraloon jotaay bi tey. bi tey lu ko waralon moy dañ don euh, réceptionné manuel yi nga xamné ni nii euh, ñu ko jaglél euh tout petit manam xalé yi nga xamné ni am nañ ben ba japp juroom ben at te nek ci département kungel bi mu xam ñu si école yi wala ñu nekkul si école yi donc loolu loo loon tey jotaay bi donc jotaay euh, protocolaire la boo xam ne ni dañuy wane rek ne jot nañ si manuel yi nga xam ne nii projet Leader in Home jagleel na ko tout tànk بالنسبه للنوانس اللي نقدر نقول الغذائيه والنظام السلبي كان مثلا هو كان يقول فاران يوري دين waaw jërëjëf laaj bi am na am na solo ndaxte sooy mbirum jàngal jàngale dafa am solo lool am solo am solo goo xam ne su fekkee ne xale bi si dottal ga amna na lu si sooxe eh, mun na donc pour bañ lolu top ko ci si ci sam indil koy jafé jafé jafe tax ñu né jooni fan ñeek ci xalé bi manam bu ñu jidé bu ñu am juroom at japp juroom ben at moment bu crucial la ci mom moom ba taxna lepp lo xamné ni war nañ ko mëna def ci xalé bi rek ci moment bobu la la baxé ndax té ñu naan euh, wañ ko ngu jubbanti ko do ko bay ba mu set su tàngee nga koy mën a jubbanti mais su seddee day naqare jubbanti donc moo tax ñu xalaat ne mbirum jàngum liir lecture muy liifont dafa solo lool te daanaka xale yi defatuñ ko donc su fekkee ne période boobu habitué nañ si xale yi miinal leen ko dina leen mën dimbali lool ci am habitude di lire te newul xale yëpp ñoo nekk ci environnement lettré maanaam newul ñëpp rek ñoo nekk ci kër goo xam ne gis nañ ci livre am ñoo xam ne dañuy judd ba ba ñuy dugg école ñu doog a gis livre ñu doog a yore livre donc nag pour mettre pour ñëpp am même chance bi moo tax ñu ne nañ jox ñëpp livre su ko defee même su fekkee sax su xëyee xool livre du ubbi rek loolu rek sax baax na xool photo yi sax baax na parce que da koy habitué ak le monde de l'écrit su ko defee su duggee école livre doon gan ci nopp lu doon lu bees ci moom maanaam donc lii daal mooy mébut projet bi dëgg dëgg dëgg daal ba xale yi di liir. ndax ñun dañuy loolu moo la mën a lancé nga buñ constaté mondial la sax du rek Sénégal te eh, daf ñoo dab te nag su la dabee da ngay xool lu siy njëriñ nga jëfandikoo lu siy loraange moytu ko si loraange eh, li nga xam ne ni xale léegi ñu koy def mooy topp euh, réseaux sociaux yi topp digitalisation moom ëpp livre nag lu lu réel la ñun ñëpp si lañ jaar te am na njëriñ lool lool lool lool lool lu mun a jox euh, tablet yooyu mënu la ko jox euh, lii sax réponse si xale yi pour ñu mun di léeg-léeg sori portable yeeg tablette ndaxte yooyu naam bonul sax waaye soo ko miinalee xale lool mun am lu bëri lu am jeexital si moom te jeexital bi loolu lu baax tax na eh, maa ngi ñaax jàngalekat yi di ñaax parents yi ndaxte livre yi am na si pour xale yi mais am na pour parents yi parce que naan feccum li su neexee nday jaa jàpp si mbakk ya moo tax parents yi suñ jotee si livre yi nañ dimbale xale yi ñu koy jëfandikoo jëfandikoo bu baax ndax livre ñu jox la ko jëfandikoo ko du am jeexital donc ku lay ku lay dimbale dafa war fekk sa loxo ñaan dimbal da fekk loxol borom donc comme que état mu ngi jéem à travers projet PIPADS bu nga xamné ni ci si la réeréen bok état mu ngi jéem mu ngi katanam donc parents yi dañ ci wara a sen loxo ba li nga xamné ni nii nañ ko mu am jéxatal bu bu gënal ñëpp xali nga xamné ni bëgg nañu jàng ci ci cadre de te sen parents yi amuñu moom yooyu engagement ñu def ci waaw loolu moom daanaka wax nañ di si waxaat mais nag la répétition et pédagogie maanaam njàng mi amul fay njàng mi amul fay war a ñëw dugal seen xale yi hmm, si case des tout petits même dans les CPE lu ñuy wax les classes préscolaires à l'élémentaire léegi ubbi nañ ci école yu bëree bëri xale xam ni xam ne am juróom benn at wala juróom-ñaari te leen di dugal benn atu préscolaire fi école yi classe yi

C'est une activité de réception des manuels scolaires dédiés aux enfants de 0 à 6 ans, ce qu'on appelle les tout petits. C'est un projet Read and Home, c'est-à-dire lire à la maison, qui est financé par la Banque mondiale. Et Read and Home est un partenaire de mise en œuvre, n'est-ce pas, du projet, du grand projet de l'EPIPA c'est-à-dire le projet Investir pour les premières années n'est-ce développement humain au Sénégal. Parce qu'on a vu que, en vérité, le facteur humain est ce que nous avons de plus précieux au Sénégal. Et ces facteurs humains-là, il, faut les prendre en charge dès le bas âge. C'est pourquoi les autorités au plus haut niveau ont pensé habituer l'enfant avec la lecture, avec le livre, avec le monde de l'écrit. Et en cela, ils ont doté le département de manuels scolaires chaque élève, en tout cas chaque, chaque enfant, qu'il soit ou non à l'école, aura à sa disposition ces manuels-là. Il y aura au moins 3 à 5 manuels hmm, par, par, élève. Et ces manuels également, il y en a pour les parents, hmm, pour guider les enfants à la maison. Et la précision c'est que les, les enfants âgés de 0 à 3 ans ils recevront les manuels par le biais du Comité national de développement de l'institution les autres âgés de 3 à 6 ans qui sont dans les structures préscolaires recevront leur manuel à partir de leur établissement. Voilà, donc... Bon, le projet, je l'ai dit à l'entame, vise surtout à habituer l'enfant au monde de l'écrit, à mettre le livre à la disposition de l'enfant. Parce qu'on a constaté que beaucoup d'enfants ne sont pas issus de familles de lettrés. Ce qui fait qu'ils n'ont pas un vécu avec le livre, ils n'ont pas de contact réel avec le livre. Ils ne, voient le livre ou ne touchent le livre qu'une fois à l'école. Et c'est pour rompre ce cercle-là qu'on a voulu démocratiser, démocratiser, je veux dire, qu'on a voulu familiariser l'enfant avec le livre, n'est-ce pas en, mettant, en mettant à sa disposition un ensemble de manuels qu'il pourra consulter, qu'il pourra lire, il pourra regarder. Parce que la lecture peut-être n'est pas encore là, cet enfant-là, mais c'est une prélecture. Au moins, il aura une idée de qu'est-ce qu'un livre et quels sont les éléments constitutifs d'un livre. Voilà donc tout l'objectif de, ce projet-là, hein, sur lequel véritablement nous avons misé et nous, nous, pensons que les populations adhéreront à cela parce que ce n'est que bénéfique pour les enfants et pour leurs parents, parce que ça dépendra de leur avenir. Et je l'ai dit, en fait, euh, sans l'accompagnement des parents, ce projet-là est voué à l'échec. Parce que l'enfant, en fait, évolue dans un milieu familial et il est sous l'autorité des parents Donc c'est pourquoi le projet a pensé doter ces parents-là de, de manuels parce que on ne peut pas du tout faire entrer des manuels dans les maisons sans pour autant que le parent puisse avoir un regard. Pourquoi nous les avons associés en leur dotant de manuels et qu'ils pourront guider ces enfants-là. Donc, ils constituent ces parents-là des pièces maîtresses du dispositif et nous les invitons véritablement à accompagner les enfants, accompagner le projet pour le devenir de leur enfant. De la fin est un mot d'appel n'est-ce pas, euh, l'adhésion de tout le monde autour de ce programme qui est ambitieux, mais également qui est important pour l'avenir du département, pour l'avenir de la région et pour l'avenir du Sénégal de façon générale. Parce que de l'avenir des enfants dépendra beaucoup le développement de notre pays. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Donc, le mot de la fin, c'est d'inviter tout le monde véritablement à se souder autour des objectifs de ce, de ce projet. Et je vous remercie.